macha allah macha allah yéen direct sur le Snap de Sankara Mbaye aha ñoo ko we just got here in Atlanta ak waa Ramadan démb bu New York fi mu nak ñi Atlanta suba lañ fi joué ci vendredi di wax Atlanta parelen Bin buñ fa jógee nag ci sunu borom ñi ngi jëm Columbus Ohio Deku DS Pro deku asan Thiam rigu, rigu Mamarem aha ci sunu borom so samedi ñi ngi ba Columbus Ohio ci kattanu sunu borom guys get ready ak the whole crew